ñaanal yàlla sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi njabootu maam Cheikh Fall yàgg fi loolu te wér li ko sabab nag ñaan yàlla sama sëriñ sëñ Bass Baal yàlla na yàlla yokki leeram taam ci barkeel ñaanu ko yàlla bu wér bu wér ba Serigne Touba boole ñu ki nga xamante ne mooy suma Serigne suma xarit Serigne Bass Bara doon taalibe Serigne Touba loolu doon ko sabab waaye du laaj. da ngay gis tey suma mbokku taalibe yi sama mbokku murid yi xëy na peut-être ci li nekk muy wàllum làmb wàllu làmb la loolu suma liggéey la suma métier la mais li nga xamante ne moom la ñu bëggee Serigne Touba te sopp ko te yàlla rek tax bëgg ko loolu ba amuñ ci sago doon taalibe si tamit mu war ñu. ñun suñu bopp lañuy dimbali safar ku ko gis ñëpp xam nañ safar Serigne Touba ñu jëm ci màggal lépp luñ ci war a def dañ ko cee war a def ndax sëriñ bi dimbali nañu ba pare digle yi kon ni ñu koy waxee rek loolu dañuy ñaan yàlla mu jeex fekk jàmm mu dem waaye ginnaaw jëm nañ ci màggal ni mu demee woon demeetu ko noonu mooy li nga gisoon ne malade bëri woon na suñu borom dimbali nañu ak Serigne Touba. lu bëri wàññeeku na ba ñuy màggale ak i safar nañ ci sant yàlla bu baax. dañ ne dañ ne murit jëfe ndigal bàyyi tere li sëriñ bi wax rek ak ñu mu ko bëggee noonu lañ koy defee. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bëgg ñëpp di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq di wax jërëjëf sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul